auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb Serigne Touba Xadim Rasoul asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di leen ndokkeel ci at mu bees mi waaye di leen ziare bu baax a baax ci weer wu tedd wi ñu nekk muy weeru muharam mbokk yi ñoo ngi fii ci Touba ci Daarul Xuddoos ci bayti ci kër Serigne Touba Cheikhul Xadim dañuy daal di ñaanal bu baax a baax Cheikh Muntaxa Mbàkke mi fi nekk Euh, ci bopp njabootuk Serigne tubaa mu yàgg fi loolu te wér waaye noonu la ñuy ziare ak a ñaanal sëñ Ahmadou Moukhtar mi nga xam ne ni moo toog jataayu Cheikh Mouhamadul Moustapha ak mboolem njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp ak mboolem judditi ak taalibe yi mbokk yi xam ngeen ne jataay bu tedd bi ñu koy amale fii ci bayti buñ koy def am na xew-xew bu màgg buy jub si muy ñaar fukki fan ci weeru muharam di bis bi nga xam ne nii ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba tànnoon ñëw dëkkaale ak boromam fii ci Touba waaye xam ngeen ne taarix dootu ko fàtte ndax ay dénkaane yu am solo yoo xam ne nii waxoon na ko Cheikh Modou Moustapha mi ko jëkk a wutu ci njaboot gi mu taxaw ko ba def ca lépp loo xam ne nii sëriñ ba doon la ko bëggee woon loolu tax na nag xam ngeen ne saa su bis bi jub si commission culturelle bi nga xam ne moo aju ci daayira wala mbooloo mu di diwaanul na lëkkale mboolee mu munti këri Cheikh Modou Moustapha yi di ko laltaaye ak a waajale ay waxtaani diine yu am solo xam ngeen ne nag loolu moo tax ñu nekk nag ci suñu ñaareelu jataay am yéene nag fas yéene dalal ki nga xamne modi Serigne basirou sek féete ñu ndijor ak Serigne Cheikh Fall Taïf ñu fas waxtane nak tombu bu am solo muy Cheikh Modou Moustapha ak njabot ganna bi fi Cheikhul Khadim baye ko bam def lépp la nga xamne ni Serigne bi santon nako ban taxawaay nak la amon ci njabot gi ngir baña a jëkk ngir baña guddal dañuy jëkkante ak waxtu wi jox suñu jeewrin Serigne basirou sek mu daldi nuyo ñu doora ag ci Serigne Cheikh kon bismillah bismillah bismillah wa ma tawfiqi illa billah ku ñu déglu ak dinu seetaan ñu ngi leen di nuyu nuyu bi lislaam mooy salaamaaleykum wa rahmatullah tàmbali nuyu bi ak siyaar bi ci borom ëtt bi di Cheikh Ahmadul Mokhtar ak mboolem jabaru Cheikh Mahamadul Moustapha gépp di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaan yàlla itam jotaay yi suñu borom dajale ñu ci ak tawfiixu sëriñ bi kon sëriñ Abdoulahi ñu ngi taxaw lu doonu incha allah. jërëjëf sëriñ Bassirou ci nuyoo yu am solo yi kon sëriñ Cheikh Fall Taïf ni ñu ko waxee léegi rek euh, ñu jox la kàddu gi nga daal di nuyoo ñu door a dugg nag ci tomb bi. muy cheikh Modou Moustapha ak taxawaay bi mu amoon ci njaboot gi ginnaaw cheikhul xadim kon bisimilah nuyool. aouzu billahi min seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala alhadi al amin sayidina muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawirin wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax ni ñu ko waxee ci pàkk bu tedd bii. ngir waajal bis bu màgg bis boo xam ne nii bis bu am solo ci yoon wi muy bisu bi Cheikh Khadim ñu bisee woon fii ci Touba ni nga ko sëñ Ablaye waxee nag ñu koy laytaayale ak ay waxtaan yoo xamante ne bii dana gën a mën a fàttaliwaat nit ñi Cheikh Modou Moustapha waaye ak wajurum woowee waaye ñu gën caa mën a jëlee ay bind nag yoo xam ne bi danañ ko tari ngir mën a waajal suñu ëllëg kon xamaa loolu lenn la rek ci jataay bii bokk ci plateau yooyu incha allah sëñ Ablaye jërëjëf Serigne Cheikh Fall Taïf ci numéro bu am solo boobu xam naa kon dañuy desandi ci yow rek laaj bi ñu jëkk a samp ñeel tomb bi nga xam ne ni tànn nañ ko tey buñ bëgg na xam tey njaboot ban wàccuwaay la am ci lislaam sukkandiku ci alxuraan ak addis loo ñuy leeral foofu. waaw jërëjëf sëñ Ablaye euh, njaboot de dafa bokk ci li nga xam ni lislaam jox na ko dayo lool jox na ko wàccuwaay bu baax a baax a baax ci taxawee ko. waaye saytu ko ngir mu mën a jof ca buy jof sit maanaa jof ak ànd ak ni ko boroom bëggee woon ndax suñu waxee njaboot mooy ay jaam lan doon ay jullit mu mel ne suñu waxee njaboot nag la ñuy wax rek mooy kaleen njaboote kaleen jaboote nag kon mel na ni am na responsabilité bu rëy boo xamante ni bii euh, su ko xamee ak bu ko xamut santeef na ko ko te loolu yaakaar naa ni nga waxee alxuraan wax dëgg wax ci lu baree baree bari yoo xam ne bii day delloo nit ki ci mu bàyyi xool njaboot gi nga xam ni moom la jaboote loolu nag yaakaar naa Cheikh Amadou Moustapha mi waxtaane sàmmonte woon ak moom lool ndax moom ñëpp xam ne ay jëfam ginnaaw dafa waxoon ni moom ak jub rek moo ko doy ak njub nag ku ko bëgg a tànq faaw da ngay dellu ci alxuraan waaye da dellu ci hadis loolu nag kon moom moo taxoon mu bawoon xel ak njaboot lool waaye maanaam nag teg ko ci njangalem l'islam ma muy ci njangalem diine lolé nak bo démé ci alcorane dang ci fekk ay ayat yu bari yo xamanteni bi bii day bàyyiloo xel nit ñi rawatina julit ñi importance gu ak njabot am importance waaye taxawu guñ leen wara taxawu nga xamé kon day melni njabot deug deug ngir mu mëna jof ci andalé lañ koy soxla day aaji ak taxawu lolé kon motax ay ayat yoyu baat billahi min shaitanir rajim suurat suurat tahrim da ngay fekk suñu borom wax naan yaa ayyuha allazina amanu xu anfusakum wa ahlikum naara wal hijaara alayha al malaikatu xilaasun sidaadun laa yasacuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun maanaam suñu borom di wax ni yéen nit ñi kat na ngeen fegal seen ndax su waxee ahli mooy seen ñooñ rek may mooy seen njaboot na nga leen fegal sawara ndax sawara soosé su su tàng la mana don doju tang ca it ay malaka yo xamanteni bi, mana ñu mané a lañ ca ñom nak lepp luñu def rek suñ borom mo leen ko sante kon bu ngeen bëggee muccu ci sawara kon na ngeen ti man na ngeen fexé ba seen njabot ngeen moytulu leen ko ca teg leen ci yoon woo xamanteni bi dara bii ca jaar ba mën caa muccu nak melni buñ ko waxé day joxañ yu bare bare bare bare bu fekkente ni da nga bëgg a sa njabot ci sawara euh, nonu ko lay yi waxee nag noonu nga ma demé ci hadith yu bare bare yu koy firndel donte laa yi sax mën naa gën bari waye da ngay fekkat ci hadith yu xantini bi day firndel lolu alquran alquran wax ndax hadith bi nga xamni mom moom jël ci abu abu hurayra radiyallahu anhu muy wax ni mana dundal sak njabot maanaa nga jël sa alal dundale ko sa njaboot wala nga jël sa alal def ko ci yoonu yàlla wala nga jël sa alal def ko ci fayal nit ki ay borom wala nga jël sa alal saraxe ko wala nga jël sa alal jox ko ay miskin nee na li muy am am am solo jël sa alal léegi financé ko ci sa njaboot nee na moo ëpp ab yool loolu kon la muy tegtale mooy importance gi nga xam ni ak njaboot am nga ko ndax yi ñu wax nii yëpp ñëpp xam ni yool bu mag a mag moo ci nekk waye limi bari bari ay yool sa alal ji nga jël dundale ko sax njabot teg len ci aw yoon Seydina Abu Hurayra neena na yonte bi alayhi salaam nee na la ci nit ki di amé ci ab yool do ko amé ci yenen yi mu wax ni yëpp waye nga demat ben hadith bo boo bi ibnu ibnu Mas'ud batay moko netli xamna batay du soreek bii ma wax ni o fofa dafa wax ni nga jël sa alal def ko ci yoonu yàlla wala nga jël ko sa alal def ko ci min ab xare ak yeen yu mel noonu nee na nga jël sa alal dundale ko sag njaboot ngir ñu mën a tege ci aw yoon ngir mën a jaamu yàlla nee na la ca jaam bay jëlee kenn du xam nan lay toll kon mu ëpp ab yoon kon yi mu wax nii yëpp kon loolu li muy tegtale mooy waaye nag dundal gi ngay dundal sag njaboot sa alal mooy ngir ñu mën a tege ci aw yoon ba mën a jaamu yàlla kon loola bokk na ci yi nga xam ni ay ay xadis la yoo xam ne bii yuñ mën a sukkandikoo la waaye soo déggee benn xaalis bii nga xam ni ba tey ibnu Mas'ud moo ko nettali ngir njaboot niñ ko war a responsabiliser nga xam ne day wax ni kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an raa'iyatihi léegi yooyu nag mu koy xajale di wax ni borom kër bu nekk maanaa mas'ul la an raa'iyatihi ci ak njabootam waaye di wax ni imam bu nekk mas'ul la waye di wax ni soxna su nek sax responsabilité bañ la jox ci sa keur manam responsabilité bi nga xamni sa borom keur dala koo jox ci ak njabotam wala ci ay mbiram yoy mas'uula nga ci te yii nak kenn ko ne da koy delloo inshallah lolou la kon day day day joxe ni seigne mana manam ak njabot dañ ko wara taxaw bu baax a baax euh baax nak melni suñ ko de taxaw dafa bari ay fan yuñ koy taxaw bi ci taxaw ak njabot dara jiru ci yar ko maanaam yar sa njabot bañ teggu ci aw yoon bobu kon dara du ko ci jitu bokku na ci it moy nga xamal ko ndax nitit ngir mo tek ci mo tek tankam ci aw yoon day xam waye bokku na ci it maanaam nga tabax ay jikko yu rafet ci mom jikko yoyu nak bi ci njëkk moy yow sa fan bop yow sa jimi bop yaay defar sa bop ba nga xam sa njabot limi gisse ci yow day doon jikko yu rafet day doon jëf yu rafet nga xam ni maam du mën a roy la lu du loolu bokk na ci sax yaru njaboot mooy nga tànnal ko sax wajuru baax yar maanaam am njaboot gu baax bokk na ca nga tànnal ko wajuru bu baax ngir bu ci jógee momit mën a am référence wala mën a am cëslaay lu mën a tegee ba jaar ci aw yoon bokk na ci sax bëggee njaboot gu baax it di leen tàggat ak di toppatoo seenu wér-gi-yaram maanaam ndax nit fi ne mën naa yonjox yonjox ba tey lañ lañ bëgg ci moom dëgg-dëgg mën naa bañ a am ca la koy waral mooy ak ñàkk wéram bokk na ci it maanaam nga yittewoo sa njaboot ci seen i maanaam seen déplacement ku ñuy àndal lu ñuy def ak lu ñuy wax loolu lépp nit ki da ko yittewoo ngir mën a mën a teg ak njabootam euh, ci aw yoon yooyu kon sëñ yenn la ci yi nga xam ni mas na koo jël cëslaay ci ku bëgg ubbi ak njaboot wa ila nga am njabar njabar gu baax mëno ci ñaka taxawi ni ginnaaw bi nga xamni alcorane waxna ci ay ayat yu bare bare kon joxal ko importance kon day melni taxaw ak njaboot farata la kon ñaka taxaw sa njaboot day melni nit mëna ca jëli bakkar mëna ca jëli sax euh mëna ca jëli mbugul suñu borom ndax gëna yonent bi alayhi salaam waxna ni ku am ñetti doom yu jigéen taxawu leen di leen toppatoo bañ am borom kër ci yalla dogal mosuñoo mo yalla ba am borom kër suñ borom am lu ma ca warlul lolu ko nang ci ciy ni ko am ak bodi nak ca taxawu wo len ba ayib am ca ko ñu non nga ci ay bakkar ko daal xam ne sëñ ci teunk mhm. lolu la mas na ko juddee lolu ak Cheikh Amadou soufana kon taxaway bi mëna ki nga xam ne moom lu mi def lepp ci diine la ko tek ginnaaw bi mu ko tànka ci alxuraan ak sunna kon nag moo tax moo tax nag mu taxawee nii ni mu taxawee njaboot gi ba kenn ko ne mën a jaar ci yoonu Cheikh Ablaye macha allah Serigne Cheikh Fall Taïf noonu nga ko waxee rek xam naa bunt boobu la ñuy ubbi euh, door jox kàddu gi Serigne euh, Basirou Seck waaye dañuy def benn résumé bu gàtt rek ci li nga xam ne nii traité nga ko muy euh, importance ak wàccuwaay bi nga xam ne nii njaboot am na ko ci lislaam nga sukkandiku ko ci alxuraanul karim ak addis kon mel na ne ab responsabilité la boo xam ne nii gàccu na ci ndoddum képp koo xam ne nii rek am nañu la suñu borom booleel xam naa ne bu ñu waxee njaboot dañ mën nañ ko partagé en deux parties njaboot gi nga xam ne ni suñu borom dafa dogal mu meññe ci yow ak ñi nga xam ne nii yaa leen yilif ci njaboot loolu dinañ ci dëkk kon sëñ Basiru bu ñëwee ci thème ci ci tomb bi dal di euh, sukkandiku ci li nga xam ne moom la Serigne Cheikh Fall Taïf wax dañuy daal di ñëw ci Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou euh, Cheikh Modou Moustapha gannaaw sëriñ bi taxawaay boobu nga xam ne nii am na ko ci njaboot gi nga xam ne nii moom la ko Serigne bi booleel muy njabootuk boppam loo ñu mën a baaxee foofu. jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Cheikh ci tomb yu am solo yi nga xam ne andi nga ko mel ni nit nag bu fekkee ne daa am lu muy waajal la ci jiinu mooy fondement. Cheikh Mouhamadul Moustapha nag ñu wutal ko fondement bu dëgër ci aw askan waaye wutal ko fondement bu dëgër ci xam-xam tànnal ko néegub ngor tànnal ko néegub jom tànnal ko néegub fit yar ko boole ci kon kooku li nga xam ne moo war ci waajtaay Cheikhul Khadim waajaloon na ko sëñ bi am ay ponk yum tënk ci yoon wi yoo xam ni sopp da caa bokk tuuba li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati nga xam ne cofeel dafa bokk ci li ponk yoon bi cheikh mohammed al Moustapha amon ko lol ci cheikhul khadim xam nga sayidina Seydina Aboubacrin Saddiq li tax mo raw ci mbolam sahaba yi yonent bi daf ne won du julli gu bari du koor gi bari walakin qarra fi sadrihi lu na ci xoram la lol nak moy sofel ga da na waxe ne man arada an an yansura maytan yamsi fawqa sira fal yansuri ila abi bakr ku beug xol aji de juy dox ci kaw suuf na xol xool Aboubacrin Saddiq bëgg gi mu bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ba nga xam ne buy wax ay seer da lay ngir bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon cofeel googu Moustapha da ko waaye nag lépp mu lalu ci xam-xam ndax cofeel bu àndut ak xam-xam noonu bu xam da koy gën cofeel googu nag moo tax gannaaw sayxul xadiim bi nga xamee ne indi nañ ko Tuubaa ci nam ko bëggee woon digaloon ko Cheikh Moustapha ba noppi maam Thierno bi mu ñëwee def ne woon sëñ Tuubaa ab jullit la ab jullit bu fi ñëwee dañ koy miraas sëñ Modou la lam ca teg mooy kër lu ne mën naa taxaw ba mu des njël la njëlli nañ ma wax ñaata la ma fay ko daa dafay njëlli ah, li may njëkki nag ci njabootuk boppam ak njabootuk sëriñ bi fay njëlli ba mu mat calal ne liggéey baax na lool ñu tàmbali nag di dunde li woon ci kër gi ba mu jeexee nee na bàyyi woon na fukki fukki tundooti sàq mu jeex ma bojjaat meneen andi ba mi laata ba dugub jooju laata njëx dugub ñoraat na daal di yiir magi bar sàq yi ba kenn du leen fekk fañ nekk te loolu leen war daan leen fa fekk loolu mu taxaw ci njabootu sëriñ gi sëriñ bi ñi ci mat a jàng ak ñi ci mat a làddanti moo ko defal boppam mel ni mooy seen waajur cofeel gam amoon ci seen waajur mu séddale ko ci njabootu sëriñ Tuubaa gi fi nekk kenn ku nekk la war ci yow ci taxawaay mu def ko ba mu sëkk loolu nag àddina dana ko laaj jamono yii nu toll ndax bare na luy am loo xam ni mag mu déggalul waajuram su bëgg yilifi rakkam ñëpp xam nañ ni mënta nekk waaye ku déggal si waajur boo bëggee yilif say rakk mu sotti ko loolu ñu bari war nañ ci jànge aboubacarin sadiq la ko taxawoon mu yilif sahaaba yi daa déggaloon ñu tabi alayhi salaatu salaam bëgg ko bëggeel goo xam ne kenn dëbb ko ci cheikh mouhamadul moustapha it noonu la meloon ci noonu la meloon ci cheikhul xadim ba tax li manoon ci jaboot gi mu def ko ci wàllu yar ñi nga xam ne moom la yaral boppam moom Serigne Touba ak ñi seigne Modou Saayir mëno leena xamé mo seigne blad daan wax né lu ma naqari lu leen naqari ci man na ngeen ko lu ngeen gërem lu leen neex ci man ak leen naqari ci man na ngeen ko gërëme Cheikh Moustapha ndax lu Cheikh Moustapha ko ci def euh, bokku na ci ak matam bi nga xamanteni bi ku melni cheikh mohammed al murtala bokkon ci ñi gëna neew ay at ci jamonoom bi mu jàngee ba ñëw amutub dëkk dëkk bu mu sancé boppam tuba kay mu nacc ko sancé ko 1922 moom la fa tuxale amee boppam yóbbu ko Madina jël tubaakaay jox ko Cheikh Mouhamadul Mourtala sëñ Abdoulahi sëñ Abdoulahi naka noonu bi nga xamante ni bii dem na ba war a amub dëkk dafa jël kàbbu gay ko ci doxal la ko Serigne Touba dénkoon juróom yooyu ne ko bu ma fi jógee nag ma yóbbu Touba te bu xaddam nag ma taxawal njaboot gi te ba ba buñ jooy baay bis bi ma fi ñëwee saa bu del see nag ma woor ru yëpp ñu daja fi sama dëkk bi nag ma fi taxawal jumaa na nga mat saytul sama dëkk ba mu nekk ci loxo ñi ma fi nekkal juróom yooyu Cheikh mustapha réussir na yëpp gannaawam lool nag ab xam-xam ak aku fit akum xel ak njàmbaar moo ko may waaye bu ëppoon mbaa mu yaafus mbaa mu ragal dana ci am loolu dana ci manqué kon loolu moo tax buñ ko woyee kamaal lu mënu lay doon njabootuk boppam gi yar na leen yar boo xam ne ñim yar kep, mën nañu yor àddina boo njëkkee ci ñaari doomam yi nga xam ne ñooy ay taawam am nañ melokaan boo xam ne njabootuk Sëriñ Tuubaa gépp bàyyi woon nañ leen xel ngir seen melokaan Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ak Sëriñ Mbacké Madina moo leen tërbiyal boppam yaral leen boppam ba noppi nag xamal leen lan moo di murit ndax nit mën naa jàng ba bari xam-xam waaye dana am lu mu umpale ci murit gi waaye loolu lépp da koo def ci ñoom ba taxoon ñoom it ñu mën a yor àddina Cheikh Moustapha bokk na ci xam-xam bi nga xam ne moom lay def ci nit ci kattanam ba nga mën a yor àddina mooy da koy tàmmal teraanga yar ko ci teraanga ba nga xamante ni bi fu mu mën a nekkati nit ñuy fay ne ndax daana wax ne boole nit ñëpp soleen ci mel mbedd nay mbeddum teraanga Cheikh Moustapha bokk na ci taxaway bi nga xamne amna na ko ci gannaaw njabot gi kep ko xam ki war nga lu la sa waajur waroon defal ci taxaway def na ba mu mat sëkk ndax daana wax ne kenn ku nek ka ngay dëkkaale ma koy seetal sa bop way duma la bayyi nga wëral ko sa bop ndax keneen ko fi indi da yor doole sëñ Tuubaa ak xelu mu jigen motax ñepp mo le taxaw ci fi leen touba Tuubaa waroon kurut Cheikh mohammed Fadal do Cheikh mohammedul Amin do serigne Abdou borom derbi do serigne basirou Basiru la la war ceew lépp Cheikh Moustapha moo ko def tax wax nañ ne soxna Astu Gaawaan toog diir bu yàgg defe na Serigne Touba sëñ Modou Sa la ci taalibe yi Serigne yi ndax loolu la leen daan wax sëñ Saliou ba mu ko jox këram gi ci mbuur daf na ko dogal ma ne ñoo bokk de dogal ma ne taalibu sëñ Touba laa mu nangul ko loola waxoon na ko mel ni Cheikh Mamadou Fadel loolu lépp daa leen ñemeloo boppam ndax kilifa day ñemeloo boppa ak njabootam bañ mañ koo di soxla loolu Cheikh Mouhamadul Moustapha amoon na ko ci moom yiir leen nag ba jenn lor di jóge ca gannaaw di leen fekk fañ nekk yiir leen ba jenn lor mënta jóge feneen fekk leen fañ nekk loolu bokk na ci li kilifa mënal moroom ja li kilifa mënal ak njabootam Cheikh Mouhamadul Moustapha defoon na ko ci gannaaw Cheikhul Khadim ci njaboot gi naka noonu itam kenn ku nekk moo saytu sam njàng sama waajur moo ma wax ne ma sëñ Tuubaa moo sëñ Modou Sa moo jàngal sëñ Mortala mi bari nee na mas nay séddale reer bi ca Taïf ñu ne ko Mbàkke teeñ koy jox nit mu di ko séddaleel te nga nekk ci yeneen yitte mu ne damaa bañ jox ko warta am xañ ko war a am sama baay moom ma wax ne ma moo ma téyel alquran ma tari maag sëñ Ibra ab sëtu nee na ma lii ci moom laa ko gisee téyel ñi mokkal di jàngal nit ñi xam-xam di jiite ca jàkka ja di séddale reer bi sa bopp nee na kenn nettalu moom moo ma ko moo ma ko defal mm-hmm. te nee na ma itam lu la mën a wax ci moom man gi alquran ndax maak sëñ Ibra Absatu la boole di téyelandoo te bi sëñ Ibra Absatu gagee ñetti yoon daf na ko da ngay bekk jiwaat nee na sama baay nee na lii moom taqat sëñ Ibra Absatu kon kooku nit la woon koo xam ne kii bu ñu la wonee jëmm ji da ngay def ne dund ñaar fukki at cinquante neuf ans la dund mhm. mooy mës ta noppalu macha allah yitte jooju nga xam ne moom la joxoon ndénkaani sëñ Tuubaa ak njaboot gi mhm. taxoon na 1943 bi mu wéradee mhm. bi sëñ Basiiru ko ne ko damaa bëgg andi ñu saytu yaram bi docteur yi ba ñëwee lañ koy wax mooy kii daa nelawul amut benn maladie bu ne ci yaram bi Euh, bi ñu demee ba bind ordonnance ba jox sëñ Basiiru mu ne ko sa gars yi lu ñu wax mu ko nee nañ ami woo jàngoro de waaye da ngaa néew waa wax nañ dëgg de ku baax ki bi fi jógee léegi néew ma jàng bët guddi te loolu lépp yitte yi mu amoon diggam ak boroomam ak yitte ji nga xam ne amoon na ko waroon na ko ci njaboot gi ak ndénkaan sëñ Tuubaa li ñu ko dénkoon tax na sëñu tëdd dina la kon sëñ Ablaye ñu ngi taxaw foofu ba ca kanam incha allah jërëjëf sëriñ Basiiru Seck ci euh, tomb bu am solo boobu mu mel ni mën nañ ci dégg Cheikh Modou Moustapha li nga xam ne ni euh, def na ko ci taxaw njabootuk Serigne Touba ak njabootuk boppam ginnaaw bi sëriñ bi ñibbi aljana mën nañu wax ne lépp lu ñittewoo defal na leen ko moo xam muy jàng moo xam muy euh, dëkkal leen moo xam muy taxaw leen ci anam yépp ba nga xam ne nii keneen képp kum ci doon feneen foo dem rek jëmmi Cheikh Mouhamadul Moustapha ngay daal di gis loolu yaakaar naa ne euh, indi nga ko ci sini say biiri kàddu waaye niñ ko waxee léegi rek xam nga bu ñu waxee taxawu njaboot wax nga léegi njabootuk bopp ak njabootuk Serigne Touba waaye nag murit yi nga xam ne ni ñoo toppoon ci Serigne tubaa moo xam muy seex yi moo xam ñeneen ñoom ñëpp mën na ne am na taxawaay boo xam ne ni itam Cheikh Modou Moustapha taxawoon na kon sëñ Cheikh Fall ginnaaw euh, taxawaay bu solo boobu nga xam ne ni gis nañu ne Cheikh Modou Moustapha amoon na ko ci njabootam boppam ak njabootuk Serigne Touba taalibe yi nga xam ne itam ñoom mën na leen a boole ci njabootuk Serigne Touba ban taxawaay. la Cheikh Modou Moustapha amoon ci ñoom ba tey jii ñu gis réalisation yu mag yoo xam ne ni xëy na taxawaay boobu moo ko waral mën nañ cee tudd jumaa ji ak yeneen yu ñu demee. waaw jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf Cheikh Modou waa xam nga foofu moom dafa mel ni euh, loolu Cheikh Mamadou Fadel waxoon rek waaw Cheikh Mamadou Fadel dafa waxoon ni sos moom jeex na nee lépp lu mas mat a sos magam ju baax na magam ju baax ji sos na ko ñoom dañuy sof rek. ndax njabootu li ñu ko waxee muy xam nga njaboot dafa yaatu lool ndax man nga xam ne képp koo xam ne bi ak kilifteefam ci yow la nekk kooku sa njaboot sa njaboot la bokk euh, Cheikh Moustapha nak dafa melni bi fi Cheikh Xadim joge dafa defat banen taxaway bo xamanteni bi ni bii ko wona ñak ma ci njabot gi ci loolu ba fiñ tollu ni ma sax wax ne dox ndax Cheikh Moustapha nim organiser waté yoon wi mana boko tambalé ci comme ni sëñ Bass ci ak njabootam boo ko boo ko génnee waaye tàmbalee ko ci seex si nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bi Cheikh Modou dafa taxawaat taxawin boo xam ne ni bii tey kenn ku ci nekk fa sa waajur nekkoon fexe ne ba samp la waaye di la dimbale ba la sa waajur doon tekki ci seexul mu di la mu dimbale yow ba nga mën koo tekki ci yoon wi waaye nag la ko jiitu nag mooy ak kon dafa mel ni Cheikh Moustapha ak sax dafa mel ni moom maanaam façon tarbiya bi mu doon maanaam bi muy bu bes la bu bu door genn ci manax ba fin mu ñuy wax ak yeen model boobu modon tarbiya kep kuñ ci tarbiya rek da nga rañiko muy ci mom ba ci tawam bi ba ci daara yim soson seen comportement seenu doxine nga xamni da ngay silvisé ku la gis xamni yimi ab daara nga waaye da ngay silvisé ba pare nak don ko deg diine don ko don ko mu rek gi maanaam loolu ba fin toll da ci rañiko manam nim ni ko ni mu ko organisé woon ku ku ci laal ci mom rek da nga ciy wuuteeg ku ku ci lalu ci moom kon loola mooy ak taxaw ñi nga xam ne maanaam ay seex lañ comme ni ma ko waxee woon mu taxaw leen ba te ban ngaa wax ni li nga xam ne moom lañ xam ci yoon yi muy gépp kilifa gu fi jóge ñu fexe ba sa sab taaw taxaw taxaw la maanaam wutu la loolu ci organisation Cheikh Amadou Moustapha la ca it mbokk yi loolu bu ko bu fekkoon taxawoo koon noona luy naqari lijjante lay doon ndax nit nag ngir mu topp rakkam loolu moom daa mel ni Cheikh Mouhamed ko mas a gis ak Mamor Diarra waaye day mel ni yombatut waaye taxaw gam gam ca taxaw moo waral tey léegi ñëpp a xam fi ne su ko fi kilifa kilifa jógee rek kan moo fay toog waaye moo def ca beneen taxawaay nag kilifa ga nga xam ne tey jii nii moo war a toog moo tax néew na fi ne tey nga gis ci yoonu murit koo xam ne ab taawam ma nga ci këram déedéet dana ko génne ngir ñu forme ji ko formation yoo xam ne bi fi ne tey jii nii yàlla na xam mais saa ba fu kilifa génnee dana ma ñëw tax taxawaayu kilifa ga. ci xam-xam waaye ci taalibe waaye ci ak kon loola taxawaay la bu am solo boo xam ne bi Cheikh Moustapha def na ko ci ñi nga xam ne ñooy ay taalibe waaye ci ñi nga xam ni maanaa dañ ko maanaa mas na ko tuddee ak njaboot waaye muy ñuñ ko jox ñooñu Cheikh Moustapha dajaa taxaw taxawaay boo xam ne bi fi ne képp koñ ko jox ba nga jógee fi boo demee fa nga won. Yo yow ab ràññikuwaay ngay doon ca loolu mën nga koo tàmbale ci ay turandoom Cheikh Moustapha képp kuñ ko tuddee jox jox la ko yàlla defal na ko tawfeex ba ci ëpp wuute nañ seen wajur ca kenn ku ne ba nga demee ab làmp nga fa nga nekk ca loolu fa nga ko jëlee mooy ci Cheikh Amadou Moustapha noonu ko suñu Basiru waxee Cheikh Amadou Moustapha Fallu nettali na ko nee na Cheikh Amadou ci la gisee kilifa goo xam ne tey mooy jàngale mooy jiite mooy seddale waaw nga xam ne lépp moom da koy def nga xam ne képp comme tàggat boo fi jógee loolu lépp danga koy man maa ngi jëlee ci sëñ Moustapha Béto yal ko yàlla dolli leer yàlla dogal na ma ziyaare joon ko benn bis mu dema xamal bi yàlla dogalee mu bindu ab kaamil ba di ko andil Cheikh Modou Moustapha wax na ma kero ñaari doomi suñu Moustapha yu mu fa fekk sëñ Aliou la wax ak sëñ Mahamadan Xarilo waaye ne bi mu nuyoo ba noppi da leen da leen a woo ni leen kaay leen nuyoog seen doomi bàyyi ji daal leen nag kii de gis ngeen ni mu andi daal leen yéene lu mel nii laa bëgg bala ma leen a gisati ngeen ngeen def ko loolu Cheikh Modou Moustapha bi to ma ko nettali kon njabot gi nga xamni kep kuñ ko jox def na ci yow wàccuwaay way wo xamni bi mom nim taxawé mu taxawee ci kanamu njaboot Cheikh khalim gi ca madeleine seuk yow bo fa démé bo démé fa fa jogé won noné ngay mel. Euh, ba ci ni ko Cheikh Amadou Bassirou waxé njabot gi nga xamni ne ñoo njaboot Cheikh khalim gi xam nga taxawu njabot Sëñ Ablaye dafa am ay fànn yu ci nek xam nit ki dana bëgg dana taxaw njabotam bëgg leen ba amal sa bok ak njabotam bëggé def du leen ci génné ngir ak bëgg Cheikh Amadou Soufane dafa matoon ba nga xam ni képp ko aju si njaboot gi saa boo gisee bëgg ngaa def loo ne bi jàpp na nii gënut dana la si jëlee kilifa gu baax nett leen ni jàng na cam cam cam bokk ak moom wajur bi mu jàngee ba noppi daa bëggoon a ni day jàngi faneen mais bi mu tàggoo Cheikh Amadou Soufane da koo jox ndigal ni ko na toog bi mu toogee yàlla dogal na ne ca toogaay boobee ca la ko Cheikh Khadim njëkk a feeñoo ca la ko ca njëkk a feeñoo sañ ab dëkk am Cheikh Moustapha xam ne ko turoo dafa diis soppi ko tudd ko tudd ko waneen tur loolu kon bàyyi xel ci njaboot ak sàmm ko moo ko waral ndax ñaar yu yëpp benn bu ci ne bëgg njaboot mën naa tax maanaam mu bàyyi mu jàll ba mu ko ne day génne dem jàngi ci biti mu ko demal wala ba mu tudd sancee ab dëkk tudd aw tur mu bàyyi ko ca mais kon dafa am mat sëkk goo xam ne bi lim lay bëgg bëgg bëgg ak li muy bëgg bëgg loolu la neex loo jàpp ne lii moo gën ca lay jaare niko Cheikh Ahmad seigne Bassir waxe lolou soxna may nettali nako ngir taxaw gi mu doon taxaw njaboot yi nee ñom ñoom nañ ni Cheikh Modou Moustapha seen talibé bàyyi la loolu nag ko ci njaboot gi mbok ak Cheikhul Khadim waaye ay rakam ay rakam mana li bëgg wax moy doomi Cheikh la bëgg wax ak talibé kon ñepp la yemalé won ci fas leen jofal ca kenn ku ci nek bu muy bu leen di jofal ci digg ci Cheikhul Khadim maanaam Cheikhul Khadim bëggee won nu melni ni ñu mel ci nono moy ni li suñu borom bëgg melni ci ab julit melni ab murid saalix mel ni kon amoon ci njabaru Sëñ Ablaay macha allah jërëjëf Serigne Cheikh Fall kon mu mel ni euh, foofu leer na nañ kon sëñ Bassirou dañuy dikkaat rek ba tey ci tomb bi waaye xam nga bu ñuy waxtaanee tomb bu toll nii ak fi jamono toll du ñàkk nag ñu jël ci njàngale mu mel noonu ñu jël ci euh, jëf ju mel noonu ñu mel ni ñu jël ci jëmm ju mel noonu muy Cheikh Modou Moustapha taxawaay bu am solo boobu ñu daal di koy déggatal waa jamono ñu daal di koy indiwaatal waa jamono ndax wax ngeen ko léegi kilifa yemul ci ki nga xam ne ni rek dafa euh, wala kilifteef yemul ci ki nga xam ne ni rek dafa bàyyee ko ci yow buñ ko jëlee ci euh, mbirum àdduna ki nga xam ne ni moo jiite réew mi ci benn côté ñun ñëpp ak njabootam la ay ministre am ñun ñëpp ak njabootam lan nga dem ci beneen côté bi kon yaakaar naa ne jot na sëkk nag ñu daal di ñëw ci tomb bu am solo bi royee ci Cheikh Modou Moustapha ngir nag indiwaatal ko askan wi ñu xam lan mooy responsabilité diggante ki jiite wala ki yar ak ki nga xam ne ni euh, mooy yaree. jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Cheikh ci jotal gu am solo bi <clears throat> mu mel ne Cheikh Mouhamadul Moustapha dafa jàppoon ne taalibe sëñ Tuubaa yëpp moo leen war a yor seen dund moom la war seenum paj moom la war seen lépp moom la war. Euh, ba tax na sax ñaar fukk juróom-ñett yooyu mu daa laaj daa wax ñi ñi dëkk Tuubaa moom daanaka da daana leen xaw a ci léeg-léeg waaye ci mën a def nuuru naa laa nuuru na loolu yi nag ndigal la Sëñ Tuubaa la ci moom ndax ñu ma wóolu seeni wax ñu nettali ma ko nga xam ne sama waajur moom ma nettali bi mu sancee Tuubaa kay 1922 dafaa ñëw bëgg a dugg xaloo maanaam tàggu ji sëriñ bi ci njaarim ne ko damaa bëgg na tukki ci biir kër gi sëñ bi ne tek mu baamuwaat ko sëñ bi ne tek ba ci yoonu ñettal mu ne ko Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko jaxasoo ak bindeef yi di xam seeni soxla da ci def la nga mën moo gën di wér di jaamu sa borom muy benn ñaareel bi itam bi mu fiy nekk wutu sëriñ bi ñëpp xamoon ay yére yombut dañ daan def ku fi mas a jógee mu jël am mbubbam jox la ñu sànge la ko am kuñ denc ba noppi ci ñami waxal mooy yoon sa day daanaka lu di ma sol day daanaka li ko tee des ci sama yére bëriwul waaye taal diir bu néew am taalibeem bu dëkk Gàmbi andil ñaari piisi mbasin jox am piisu mbasin jox ko mu laaj ko ne ko ja ndax jaar na fa mu war a jaar mu ne ko déedéet mu ko demal jaar ko muy duwaan mu delluwaat ba foofa bi mu waxee euh, kii nekk ci duwaan boobu tubaab bi fi nekk fa mu jógee mu laaj ko lu ko tax ñëw mu wax ko ko mu yéemu ci kàddu gi ak jëfik ndigal gi ak ko gi mu bëggu njub ak nit ñi ni ñu bëgg àlal tam defi lii mu yëkkatiwaat beneen piis ne ko may naa ko duwaan bi ak addi ji mu ñëw ba mu ñëw mu ne ko dénk naa leen ak njub ak tegu ci aw yoon kon loolu lépp am njàngale lay doon moo xam ni danañ ci war a mën a mën a jàppe ne Cheikh Mouhamadul Moustapha ku mënoon a dimbale nit ñi la ku leen bàyyi woon xel la yëmale woon ko yëmale woon taalibi yi nag njabootu sëñ Tuubaa mooy bàyyi boppam yi yi ko fi sëñ Tuubaa loon ak lenn ci magi taalibi yi ku ma sa jógee Kajoor di ñëw da lay wax ndax jaar nga am Cerno boo ne ko déedéet mu boolee lan ko jox ak lam am ne la dama yotal ko bàyyi bo joge côté bi na la ndax jaar nga ci mam Cheikh ant bo ne ko dedet mu boole lam yor jox la ko ne la demal ko nek da la teg fi barab nek ne bu ko fa kenn wessu di ma fa fek sëñ blaaj bi mu ko yóbboo kàbbu gay daf ne seigne touba ngeen ma don topi andina len ko kon mi ngi euh bu de ci walu talibi nak ma ngi koy netali sank bay Mor sek mok sama bay ñoo bok ben bay ay na mbay mi xawa a doy kiimaan lool bi mu defé limi def lepp ña kayitu ñaar fukki dërëm la dess mu xamul num ko yobbo mangi parce que booba mag ñi buñ sa bay ba nopi lañ rek lañu mëna am adé mu xép ñaar fukki néna bimu na mënu ko ñak jox señ mënu sa mu yegg nuyu ko nako ah mbacké day ngi jégalu ndax adé jëlé nda tuti lool ko ko mor nako fay nga ko mu waaw mu fay nga lemp mu waaw mu ko wutul nga sol mu waaw mu ko luñ mas am na fa mu waaw mu ko xana xamul loolu boko defuton man la war boko defuton man la war sa ko maay fay boo fayutoon lemp maa koy fay kon daa jàppoon ne moom moo war a dundal njaboot gi wax nañ ne am nay jamono amoon na fi oto beneen oto bu ko joxoon boo xam ni ci jamono yi 39 45 bi geer bi déclaré dund bi manqué maanaam réew mi nekk ci crise mondiale benn colon ci tubaab bi nekkoon njaareem am ku mu wóolu mu ñëw mu ne ko fekkee mën nga fukki fan ak juróom mu ne nga jox ma oto sumul ma jox la oto bii ba nawet wàcc da ngay andi oto sumal ma joxe fukki fan juróom yu ne nga andi benn tubaab bi jubóog moom ci loolu. ki ma ko nettalee nee na sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëñ Bassirou bañ koy yëgee ñu jàpp ne lim lim joxe oto bi néew na biñ ñëwee di ci wax ak moom ne sëñ bi dana bëri dugg ci biir ab diir bëkk néeg ba fekk ko fa na ko dey sëriñ Cheikh ak sëñ Bassirou di ñu ngi toog ba tey ñoom mu daa di ubbiwaat bunt bi nee man kat Bassirou damay bëgg a jaarale xanaa xamu leen ne dimbale benn taalibi sëriñ Tuubaa moomu gënal oto bi dimbale xettali benn taalibi Sëriñ Tuubaa a ma gënal oto bi boo seetee ba ci ñaan yi mi ñaan te kadar te kadarati dunya wa daaxat alal waraa maanaam ñaan yi ñaan rek mhm. jullit yëpp lay ñaanal daane daana wax ne ci ñaan yi may ñaanal jullit yi daane boole wax ne boole nit ñëpp mhm. sol ci mel mbedd nay mbeddam teraanga foofu la soloon taalib yëpp moo tax kenn mën ko woon a muñ kon sëñ Ablaye ñu ngi jërëjëf jërëjëf sëriñ Basirou xam naa dañuy jëkkante ak waxtu wi ndax euh, ñu ngi ñuy signalé kon sëñ Cheikh xam naa ñuy tëje rek yow itam ci euh, dirub benn ñaari simili rek euh, wax nañ ko sëñ Basiru léegi tomb bi nga xam ne ni moom lañ doon traité lan la ci waa jamono mën a yóbbaloo rawatina njiit ñi nga xam ne ni dañuy yar seenu njaboot. waa jërëjëf sëñ Ablaye sëñ Cheikh Amadou Basir waaw Cheikh Amadou Moustapha dafa mel ni ni yonent bi alayhi salaatu salaam dafa nekkoon njiit jàpp naa ne képp ku njiital jamono war nga caa war bind. ndax yonent bi alayhi salaatu salaam mën ngaa wax ne mooy kiy jiite. waaye mooy atte waaye mboolem li ñuy soxla ci euh, euh, mboolem di soxla moo koy def takk sa ak yéene ci aju ma jàpp nag lépp njiit fi ne loom si da doon njiitul réew wala njiit loo mën a doon yow it sa taxawaay mooy nii Cheikh Moustapha doon jiitee ak njaboot nag boo leen jiitee da fexe ba la nga yor nga fas ko yéene bokk ak ñoom waaye ñoom la ñoom lañ yor nga bàyyee leen ko waaye ci sa der bii ni Cheikh Moustapha def nga xam ne dafa waxoon ne der bi moom daanaka da koo saraxe loolu njiitit nag taxawaay boobu la war la war a am ci ci ñi may jiite lépp loo xam ne bii ñi ngay jiite ñoo la ko gën a bëgg nga bàyyee leen ko nga bàyyee leen ko kon damay wax ni képp kuy njiit njiit nag sa kër lay tàmbalee nga doon sa njiitul kër sa njiitul gox ba ci njiitam réew war ngaa jël ay bind Cheikh Modou Moustapha nam doon jiitee ndax gëm jàpp naa ne képp ku ku taxaw ci taxawaay walla sax nga xaw koo jege ci nam doon jiitee ñi nga ñi nga jiital ñëpp lay gërëm ñëpp lay sant ci it dañuy am jàmm. kon jàpp naa ni la ci kuy njiit ci bàyyeeg nit ñi li ñu yor ca moom li mu yor mu bokk ak ñoom waaye bàyyi ab deram lu ko neex lu neex waaye na ko wax ca moom du wax kenn lu ñaaw. kon loolu dañ ko war a dañ ko maanaam ñun jamono mhm. lu ñu war a jënd jëndeel Cheikh Modou Moustapha ndax si bàyyi jamono laaj na ko lool xam naa kaddu yi ngay tëjaale mhm. waaw xanaa di santaat bu baax rek e, di gërëm ci jataay bi e, ci ni nga xam ne noonu ñu ko taxawoo waaye di wax ni daal Cheikh Modou Moustapha ab royukaay la ci anam yëpp boo xam ne bi jamono soxla na ko kon jàpp nañ ni modèle la ci anam boo ko mën a jël ngir ñu delluwaat ci moom ngir suñ suñ dund gi ñu nekk mën a doon dund gu na tax waaye ñu mën a teg suñ tànk ci jaamu yàlla teg ko ci ndigalu sëñ bi ba maanaam boo liggéey ñu mën a mucc ci ak njabootit ñu mën koo jof te bu ñu koy jofal la la ci suñu borom bëgg ñu mën ko defaale kon noo ngi sant ñëpp di gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam kon sëñ Basiru yow it dañ lay jox rek nga daal di yëkkati sa kaddu yi ngay tàggoo mm-hmm. waaw jërëjëf kàddu yi day xam naa mooy ni ko sëñ Cheikh Fall waxee rek njiit ak kilifa bala nga koo doon nit ki mënu koo doon te ragal yàlla amut ci moom nit ki mënu koo doon te njub amut ci moom nit ki mënu koo doon te yërmande ju bari amut ci moom waaye nit ki mënu doon te yar amut ci moom nit ki mënu koo doon te am xel nekkul ci moom waaye nit ki mënu koo doon te war ma nekkul ci moom mu mel ni yooyu yëpp nag Cheikh Mouhamadul Moustapha boole woon na ko ci jikkoom ji te makaarimul axlaax ci téye àddina ndax yonent bi alayhi salaatu salaam daf ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq li tax yàlla yónni ma mooy ma mottali tedd ngay jikko yi loolu nag mooy jéggal ku la jox ku lay xañ jokk ku lay dog loolu lépp nag mi ngi woon ci Cheikh Mahamadou Moustapha moo tax bi maam Thierno nelawee sëñ Cheikh Awa Balla bi mu ñëwee bim ko bi mu diisoog moom ci wàllu kilifteef daf ne ko boo demee say doomi baay ak say rakk lu ñor yor nang leen ko baye loo nang ko bokk ak ñom na nga nangu ñuy anci sa na nga ñuy anci sa doole di reer ci sa der mhm. nañ anci sa doole di reer ci sa der lool boko defé yilif ñep assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullah Serigne sek jere Serigne Cheikh Fall taif ci tombe bu am solo bi nga xamne ni ñu mom lañ doon waxtane tay mu jëm ci Cheikh mohammedul mustafa ak taxaway bu am solo bi mu amon ci njabot gi ak mbooleem jullit gannaaw euh, nekkok Serigne Touba Cheikhul Khadim fi ci dara dunya waaye ñu dégg ci ay tomb yu am solo yoo xam ne ni itam wala yeneen tomb yoo xam ne itam yaatu na ci lool ci euh, fi nga xam ne foofu la jamono toll kon jot na sëkk nag ñu daal di delluwaat ci taxawaay bu am solo boobu nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Moustapha amoon na ko rawatina nag ci ñi nga xam ne nii ñoom la doon yar kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jataay bi nag doon ñaareelu jataay bi nañ ko waxeen ci ak njaal benn waajal bisub euh, ñaar fukki fan ci weeru xaram di bis bi nga xam ne nii ci la cheikhul xadim tànnoon ñëw dëkkaale ak boromam ci taxawal cheikh Modou Moustapha mu def ca lépp ba tax saa su bis bi dikkatee nag ñi nga xam ne dañooy aju ci diwaanu Muddina lëkkale mbooleem wunti këri Serigne Touba yi commission culturelle bi di ko waajale ci anam bi kon nag li benn jataay la di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo jàpp ci xarala gi moo xam muy caméraman yi régisseurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne dañ koy yaatalaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii ñu ngi koy def ba fexe fépp fu mbokkum taalibe nekk rek nga mën koo seetaan ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dox daje beneen ab jataay ci waajtaayu muharam 1444 2022 wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu